jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi amaat nañu mbégte ci beneen numéro urgence comme ni ñu koy waxee taxaw seetlu bi nga xamante ni dañ ko am ci tolluwaayu jamono ji loolu lépp nag li nga xamante ni moom moo ko waral moo di Covid 19 di mbas mi nga xamante ni moom la wax ginnaaw coronavirus 2 mars bi mu duggee Sénégal boobu ba léegi tey ñu xayma ko ci samdi ji ñuy wax yemboog 2 mai loolu dafay xayma nat ñaari weer. loolu nag dafay laaj ni ñu defee woon ci benn weer bi 2 avril am ci taxaw seetlu noonu la ñu delluwaatee ci leneen loo xamante ni fas yéene nañu mu jariñ askan bi ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi ñu ngi ñuy may nopp ñi nga xamante ni ñoo di askan wi nga xamante ni tax nañ fi toog ngir ñu mën a am luñ leen mën a laajal yenn yiñ ci war a joyanti ñu jéem ko def loolu mbokk yi moo tax ñu dajale tey ay boroom xam-xam yoo xamante ni fas yéene nañ ñu toog am ci lu bëri loo xamante ni. dinañ ko delloosi ci gàttal kenn ku ci nekk dinañ ko cërale lees lu néew loo xamante ni dana ci wax nuyoo ak téléspectateurs yi bu ko defee tey ñu dellusi ci ak yéen ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg a samp tey waxtaane dinaa ko dooree ci sama ndeyjoor feggoog seen càmmañ président Amath Niang moom mooy président ordre de pharmaciens yu Sénégal nekkit président inter ordre président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mmh. di nuyu di la ziare di la remercier ci invitation bi di remercier aussi sama naataangoor yu ma bokkal plateau bi euh, les éminents professeurs et mon collègue euh, Fallou sàmb d'accord di am mbégte lool ci daje bi ñu daje di waxtaan ngir soleil feebar bi ci réew mi. Mmh. alors yaa ngi ak sa wet professeur Tandakha Ndiaye Dièye moom nekk na koo xamante ni xelam màcc na ci wàllu immunologie. professeur fekk naa ko synthèse mu doon centre boo xamante ni mi ngi jëm ci lu ci bëri loo xamante ni toppatoo lu jëm ci wàllu deret ñu xam ko fa wàllu immunologie jamono ji war nañ ko ci xam laale na ak IRSF waaye tamit laale ci yeneen gëstu yu nga xamante ni tey université bi nga xamante ni wax nañ ko bu Dakar waaye tamit wax ci lu jëm ci wàllu observatoire ku ko wax dem ci enseignement supérieur rawatina jamono ji professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Moussa euh, di la rafetlu euh, invitation bi. Mm-hmm. ndax sawar lool ci wax ci mbiru Covid 19. Mm-hmm. ndax suñu askan moom dañ leen war leeral fu ñu toll. Mm-hmm. gaa ñu ay jàngalekat lañu waaye li ñuy gën a yitteel mooy que askan bi nga xamante ne ñun yoruñu yoruñu leen ci école ci université yeeg yooyu. ñu mën a waxtaan ak ñoom. ba leeral leen mbirum Covid 19. li ci am yëpp daal ñu ñu ñu jëm leen ko wax. d'accord alors professeur Massamba Diouf nekk agrégé en santé publique professeur ñu amaat mbégte yow it jàkkaarloo ak yow ndaxte yaa ngi université Cheikh Anta Diop Dakar sa xel am ci lu mu màcc jamono ji mu doon loo xamante ni mënuñu waxtaane lu ni mel sans pour autant que yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci pàcc boobu rawatina santé publique am ci lu bëri loo xamante ni tey war ngeen ko ci mën a gëstu parce que quoi qu'on puisse dire en santé publique le préventif finance le exactement jërëjëf euh, Moussa maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur bu 2STV yëpp di leen ziar ci weeru koor bi ñu nekk di ñaan suñu borom balaa muy jeex yàlla na ñu génneel mbas mii di Covid 19. Mhm. suñu biir territoire damay faral di wax rek ne comme moment jaamu yàlla la nañ ci profité lu ñu man ñaanaale mhm. eh, ginnaaw bu ñu jëlee suñu matuwaay nag yi nga xamante ni parce que yàlla yàlla bay sa tool mhm. mën a bay suñu tool ba pare ñaan yàlla tool bi gën a naat après mhm. loolu mooy li nga xamante bëggoon naa ko wax di am mbégte di la remercier bu baax aussi pour wax ne rek ne ñëw nañ encore une fois de plus pour jéem a waxtaan ak askan bi lépp loo xamante ni euh, xëy na jàpp nañ ne war nañ ko xam. ci feebar bi. Euh, dañ ci def suñu kem kattan pour ñoom ñu gën a xam ginaaw bi ma nuyoo sama naataango yi ma bokkal plateau bi. d' accord docteur Serigne lu Samb nekk suñu consultant en même temps chroniqueur ci émission bi nga xamante ni moo di urgence tey. li nga xamante ni moom moo di taxaw seetlu docteur maa ngi koy wax ci ñaari weer yi nga xam ne moom la ñu toll. alors yan terme la lay pour cadrer le débat. waaw jërëjëf Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar président Omar professeur Dieye professeur Cheikh Massamba Diouf di ziar Sénégal yi nga xam ne ñoo toog seen télé di ñu seetaan di leen ndokkale ci weeru koor bi. Mm-hmm. di wax ne tey boo xoolee mooy deux mois yi nga xam ne Covid 19 mi ngi Sénégal. Mm-hmm. bu ñu ko xoolee nag en terme de chiffre deux mois lay doon mille vingt quatre cas positifs trois cent cinq pour cent de l' effectif. Mm-hmm. six cent cinquante huit sous traitement quatre vingt onze nouveaux cas et ensuite euh, mu am neuf décès benn évacué. Mhm. donc loolu bu ñu ko xoolee rek mooy euh, mën nañu waxtaan tey ci mbas mi bu mu fi dugg ak léegi. Mhm. célérité bi mu am lu muy doxee paradigme bi ñu ci jël. ak yan stratégie nañ war a jël adopté waat pour war a vraiment. Euh, mhm. solo su waxtaan si mu ñuy def ak spécialiste si ñu wër. naka la feebar mën nañ mën lan lañ war a joyanti. yi abord ci ci ci ci ci lutte bi. ak naka la yan base lañu war a tegaat. pour vraiment fexe ba feebar bi incha allah rabi génn ci dëkk bi. d' accord kon tey dinañu xool la gestion. wax ci lu jëm ci wàllu stratégie ñëw ci wàllu paradigme. contexte bi nga xamante ni moom la ñu toll jamono ji di ko wax. li ëpp bopp askan wi ñu nga xamante ni tey jii kenn ku ci nekk bëgg na xam sa tolluwaay ak li nga xamante ni tey mooy wàllu feebar bi. professeur Dièye bokk na ci wàllu immunité bi nga xam ne ñu ngi koy wax. sa xel màcc na ci wàllu immunologie xam nga ko xam nga li nga xam ne moom lay def ci nit. tey bu ñu demee ba ñi nga xamante ni ñu ngi jàpp ni tey une immunité collective pour être une solution par rapport au contexte tey sa réponse lan la ciy doon. waaw ma rafetlu question bi nga posé euh, je pense que euh, comme ni ko daan waxee rek nu ma la waxee woon euh, waxtaan naa ci sama yeneen ay yeneen naataango yu bare collègue yu bare. depuis ba ñu commencé ba léegi di wax mbirum Covid 19. li ñu ci wax rek mooy benn stratégie la boo xamante ni ñu bare daañ ko utiliser. Mm-hmm. dëkk bare. am na ñu ko jéem mooy euh, boo xoolee dëkk bu mel ni Suède am na ñu ko jéemoon bàyyi ko mooy dëkk boo xamante ni comme euh, comme Angleterre. Mm-hmm. am na ñeneen ak ak Hollande ñoo xamante ni jéem dañ ko utiliser. waaye ci gàttal euh, bii dafa nekk rek benn cas particulier ci Covid bi moo tax ñu koy wax léegi. Mm-hmm. waaye loolu beesu fi. loolu jàngat la ñëpp jàng nañ ko ci ci nasaraan ci école immunité collective mooy bu fekkente ni nit ñi dañ dañ leen bàyyi ñu contaminante Euh, euh, ñaari façon que mën am nga bàyyi ñoom ñu wàllante am ko environ quatre-vingt pour cent des personnes ou bien rek nga am vaccin. Mhm. waaw boo ñëwee vaccination nag mooy li nga xamante ni moo ci gën. Mhm. boo amee quatre-vingt pour cent de couverture vaccinale mais ñi na ni rek ñoom duñ kenn dootu amati mhm. mooy mbir mais cas bi dafa nekk cas bu xaw a tax parce que euh, dañ ko xamul dafa bees. nouveau coronavirus nit mosu koo xam. donc bu doon yeneen la sax mënu mësul nga ko sax di nemmee ko de temps en temps mais bii dafa nekk lu bees. Mhm. suñ ko xam comme dafa nekk lu bees non seulement dafa nekk lu bees mais aussi dafa beesaay boobu daf tax na ba nga xamante ni kenn xamul sax ni yow boo boo ko amee ba pare nan lay dayo bi boo ko amee pare est-ce que yow bii ci ban diir la lay am nga am nga am maanaam protection. Mhm. kenn xamu ko. Mhm. donc lépp jàngat la. lépp dañ koy jàngandoo rek di dem. moo tax ñëpp nag def attention. ñëpp daal di fagaru nag. daal di bañ a nag dem nag ci ay euh, concept yoo xamante ni dafay xaw mën na am mu gàllankoor ñu ci mu ci xeex bi. moo tax mbirum boobu mbirum immunité collective boobu xamante ni ñu bare commencé wut nañ ko mais ñu bare dañ ci génnaat. parce que dañu a ah, lii kër wóorul. parce que ñun fu ñu jëm xamuñu daal ci fan la ñuy mujjee. Euh, kon nag école la am na école yoo xamante ni anglais yi moom loolu seen école la woon. ñoom loolu dañ ko tàmm rek ñoom def immunité collective. mooy seen mooy seen façon. Mm-hmm. mais bii dafa fekk ne lu bees la mais comme xamuñu ba fan la ñuy yem. Mm-hmm. benn xamuñu bu fekkente ni da am jàngoro bi xamuñu est-ce que da am dana la aar ba amee ay anticorps maanaam ay soldaatu yaram. Mm-hmm. est-ce que ci ban diir la lay protéger xamuñu ko benn ñaar aussi feebar bi dafa am ñetti phase dafa am phase boo xamante ni phase feebaru viral la. maladie virale. boo xamante ni comme boo jëloon ngaste yi dafa am ni muy apprêter sa yaram. bu demee bu commencé di dem bay bay jeex nga am ci ay anticorps maanaam ay ay soldats yu lay protégé waaye bii dafa weesu loolu nag dafa weesu phase ba dafa am beneen bu mu ci topp boo xamante ni day mën a attaquer say poumon. Mhm. mooy phase pulmonaire bi ngay àpp ak yooyu di sonn essoufflement mhm. ba yegg ñenn ba troisième phase bi nag mooy bi nga xam dafa metti yow da ngay xeex la nga xamante ni gisuloo ko. Mhm. te moom moo la gën a gaaw. dafa multiplier lu bare bare ba nga xamante ni yow jumtuwaay yi nga am sa yaram yëpp. pour mën a aar sa bopp. Mhm. les défence immunitaires yi nga am yëpp ngay boole pour xeex ko. d'accord yooyu nag tam défense boo xamante ni nag yoo xamante ni da ngay gaañ sa bopp. Mhm. moom moo tax nit ñi di gaañ seen poumon poumon yu yàqu ñu am problème détresse respiratoire am ñu am assistance respiratoire ci am fa ñi faatu ñu bare côté boobu la benn beneen bi aussi mooy ñi xam ne dañu amee comorbidité moo tax xamuñu kan mooy yegg ci foofu. Mhm. léegi kenn xamul képp ku mu laal na nga njort na nga ñaaw am ñaaw njort rek ni mën nga yegg ci phase boobu nga xam te moo lay faat kon nag mhm. kenn mënul nag euh, léegi nag mais boo xoolee rek ci njeexital rek ci loolu mhm. Mhm. Euh, Sénégal jël na benn option option boo xamante ni mooy dañuy xeex cas par cas bu ñëw rek ñu saytuwaat ci ñu environnement bi yëpp jusqu'à suspect yëpp ñu jee leen depuis maintenant quand même depuis le 2 mars ah ñu koy rafetlu waaw loolu mooy li Sénégal adopté comme voie te wax dëgg yàlla na ñëpp fi mu nekk nii ci leen jàpp mhm. ñëpp ci jàppandoo mhm. corps de métier yëpp mhm. ak bàyyiwuñu kenn ñëpp jàpp ba nga xamante ne wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ah li amagum day ñu bu fekkente nii lay continuer mën na am dañu am njort ni xëy na dañ yegg pig balaa yàgg alors professeur Massamba par rapport ak context bi tey ban bilan ngay tiire déjà par rapport ak deux mois yi nga xamante ni def nañ ko ak approche bi nga xamante ni tey ci la ñu bëgg a décliné wu waaw merci beaucoup Moussa di la gërëm ci laaj boobu bu ma doon tiré bilan tey mën naa wax ne bilan mitigé laay tiré bilan mitigé parce que boo xoolee euh, certes am na effort yu bari yoo xamante ni consentir nañ ko mhm. euh, effort yu demee nii euh, ni ñuy testé nit ñi boo xoolee am na un petit bond en avant nombre de tests bi ñu doon def au départ dañu doon da doon tourner autour de deux cents mhm. chaque jour ñu dem à près ba un mois mhm. ñu ngi woon ci loolu boo xoolee temps yi ñu génn test yi ñu ngi koy yokk mhm. di dem ba ay huit cent nangam démb su ma jumul dem nañ ba cent nangam ba mille mhm. et cetera ça veut dire que bon am na foofu loo xamante ni test yi mu ngi koy wone euh, li tax ma ne bilan mitigé nag mooy tey jii boo bàyyee euh, chiffres yi nga xamante ni moom la ministère bi joxe mën nga jàpp ne am na ay effort certes waaye aussi am na loo xamante ni leeragul le côté invisible de l'iceberg boobu ñuy wax noonu man si sama euh, xalaat dama jàpp ne tant que defuñu euh, loolu ñuy wax ay tests massifs. Hmm? nga xamante ni euh, daanaka man bi feebar bi commencé balaa muy def une semaine am na benn kii bu ma bind pour attirer attention autorités yi ci loolu ne leen fi mu nekk nii feebar bi ni muy demee ni ñaari option mën nañ ko am wala ñu tànn ci option yooyu benn c'est-à-dire bu ma ne ñaari option option yoo xam mën nañ leen a coupler wala option yoo xamante ni mën nañu dem de manière isolée bi ci njëkk mooy ñu def dépistage ciblé dépistage cible boobu dañuy identifie toutes les zones yi nga xamante ni ay zones covidogènes lañ ñu dem fa dépister population yi boobaa dinañ mën a am une idée très précise de l'ampleur de la maladie au sein de la communauté bi ma koy wax ñaari ñaari zone kese lañ amoon bu ma neexee sax ma ne cluster la woon Touba ak dakaar te dakaar du woon tout Dakar ay zone la donc yomboon na boobu noonu boobu moo nekkoon première stratégie beneen bi ci des ma ne leen euh, mën na nekk un dépistage sélectif mais assujetti a un petit confinement de 7 à 10 jours ba ma koy wax si jamono jooju encore une fois. Mhm. parce que boobu jàppoon naa ne sénégalais yu bëri demuñu woon ba yegg ci fenn fi ci information yi. Mhm. ci feebar bi. donc doon nañ mën a profité woo ci contexte boobu noonu pour mën a def yenn stratégie pour gis résultat yi. Mhm. parce que aussi man damay wax ne ñun euh, ay scientifique lañ. du ñu yeewu xëy suba rek ne nañ def telle stratégie. Mhm. lu ñu xool lu ne dañuy xool fan lañ ko testé. fan lañ ko éprouvé ah lan mooy soubassement bi. Ah. lan yan résultat la war a mën a jural askan bi résultat en terme de santé publique. Mhm. ñu proposé ko may leen donc stratégie yooyu bii mën nañ ko jël wala ñu jël benn wala ñu couplé leen ñoom ñaar. Mhm. bu ñu leen couplé. mën nañu permettre ñu mën a am résultat yi nga xamante ni moom la ñu escompté loolu nag ba léegi man dama jàpp ne weesoogul mhm. comme ñu ngi yokk test yi euh, stratégie yooyu mën nañ ko mën nañ ko dabe pour ma mën a joyanti mhm. parce que tey bilan bi buñ ko dee def mënuñ ko def tant que évaluer wuñu mhm. évaluation nag ñun en santé publique ni ñu koy waxee mooy day ànd ak ay indicateurs indicateurs yooyu noonu boo ko jëlee appliqué ko dana la mën a permettre nga mesurer pour mën a xam lan mooy gab bi toujours Euh, am na ay mesures yu ñu jëloon pour accompagner xeex bi mesures yooyu aussi jot na encore une fois ñu càmbar leen bu ñu xaar ba xaw ma ban temps parce que quand même euh, euh, bu ñu nekkee ci processus bu mel nii man dama jàpp ne à tout moment war nañ mën di joyanti mhm. joyanti boobu mooy mën a permettre ñuy corriger yenn défaillance yi am. d'accord voilà jël nañ mesure couvre-feu xaw ma mm-hmm. ñaata temps la am nag. parce que voilà damay bëgg. <laughs> maa ngi ñëwaat parce que maa ngi ñëwaat. waaw baax na kon mais de toutes les façons couvre-feu. Mm-hmm. remarqué nañ ko. waaw remarqué nañu euh, tëj nañu école yi. tëj li nga xamante ni moo di jàkka yi. voilà loolu. les les inter interurbains. waaw waaw ensuite port de masque généralisé benn bu ci nekk. Mm-hmm. am na jàngat boo xamante ni mën nañ ko cee def. d'accord après ñu xool luñ ci war a mën a dindi wala luñ ci mën a euh, changer wala luñ ci mën a yokk pour mesure boobu gën mën a efficace. d' accord alors président Niang. gestion bi nga xamante ni mooy gestion Covid bi lan moom mooy ci sa gis-gis. waaw gannaaw bi ma la santé eh, defe il faut ma delluwaat ci eh, fii professeur njëkk a duggee waaye dañu nekk ci weeru koor ñu ñaan. Mhm. parce que c' est mois béni. nga xamante ne nii weeru yërmande la. Mhm. ñëpp ñu tàllal suñu loxo yàlla may ñu piste. parce que subhanahu wa taala buy faj day inspiré et comme on est des professionnels ci ñaan googu mën nañu inspiré ba tey ñu gis solution alors par rapport en fait au bilan comme on est à 60 jours vraiment de vécu yoo xam ne dund nañ ko ci Covid bi face également aussi à un échantillonnage de 1024 ça nous donne une moyenne de 17 Sénégalais yoo xamante ni par jour danañ ko am mhm. donc lan ñu may ñu yegg si foofu on a constaté que depuis que ñu augmenté le niveau de test mhm. donc ñi ngi gën a am une visibilité par rapport à l'évolution de la maladie mhm. maanaam maladie bi ni muy doxe ñu ngi koy gën a xam donc la stratégie la qui pèse nga xam ne mu ëpp doole ba aujourd'hui jéem a fexe ba test yi ak nu état mën a trouver les moyens yu ko mën a permettre test yi en réalité ñu yokk mhm. bu ñu ko yokkee je pense que dinañu gën a mën a may échantillon bu large bu ñu mën a renseigner par rapport a l'évolution de la maladie mmh. ça c'est fondamental l'autre élément aussi je pense que boo xamante ne c'est une stratégie payante mooy sensibiliser davantage à ce que les populations gën a approprier wu vraiment de euh, des stratégies de lutte mhm. man mmh. je suis très réconforté bi may ñëw j'ai vu que yoon bi boo koy traversé ñëpp ñëpp porté nañu masque mhm. et une propagation bu amee. da ngay arrêté quand il une barrière. Mhm. je pense que tey loolu moom mooy euh, première chose bi nga xamante ni suñu ko insister davantage rek parce que oh, en réalité on ne lutte pas contre corona c'est une réalité li nga xam ne dafa am du loolu ngay xeexal li ngay xeexal mooy nu nit ñiy def bu mucc ci. Mhm. nit ñi nu la ñuy def bu mucc ci mooy ku ci nekk xam ni ne lii su ma ko defee dinaa ci mucc mucc ci muccal ci sama morom. je pense que du point de vue de ces stratégies-là ça mhm. c'est important. mais jusque-là gis nañu population yi manqué nañu approprier. waaw mooy mooy mooy mooy non jusque-là c'est parce que quand même aussi les moyens n'étaient pas là. aujourd'hui le port du masque aujourd'hui mhm. je pense que bu ñu ko généraliser que ñëpp di ko di ko di ko di ko def seen réalité seen vécu quotidien je pense que dina arrêter lu bari mhm. et li ci des aussi mooy li may wax la sensibilisation c'est-à-dire que aussi sensibiliser informer et communiquer ça fois on informe je pense que euh, le ministère war na changer peut-être démarche ci loolu. bon génn wax ni ne kaay yi kaay yi. nangam dañu war a wut plage de communication boo xamante ne nii dañuy jël spécifier l'importance du masque. Mhm. spécifier l'importance de se laver les mains. spécifier l'importance respecter distance bi. Mhm. ba mu dugg ci boppu doom aadama yi ñu spécifier leen ne leen également feebar bii kat képp ku doxee ne nii ak nii dana nga dana da nga ci mucc. te aussi da nga muccal sa njaboot. Mhm. leneen li ci des aussi bëggoon naa ci peut-être am suma avis tuuti. Mhm. mooy kan bi ngay poser le problème de l'immunité collective. je pense que euh, c'est même inquiétant au niveau de l'OMS. parce qu'il y a deux facteurs clés yoo xamante ni tu ne peux pas aller vers une immunité collective te ces deux facteurs là doo ko déterminer. je mhm. pense que le professeur professeur Tandakha l'a dit aujourd'hui quand il y a une maladie nit ki contracté ko. il faut que ñu xam ne ne maladie bi boo ci boo ci wëree dootu la dalaat. mais fii leeragul. non non non et j'ai même appris quelque part ici au Sénégal je ne sais pas. Ziguinchor ah, Ziguinchor am na ku mu daloon ñu wër mu dalaat ko. Mhm. donc on ne peut pas parler en ce moment prendre le risque d'aller vers vraiment une circulation de ce virus là pour que nit ñi di ko contracter. Mhm. parce que comme il l'a dit le tableau qui décline la maladie. ces risques-là, la prise en charge et tout. Mais aujourd'hui, avant que tu am une immunité collective, mais tu risques de perdre également des, des vies. Mhm. Donc, muy le premier facteur, moi l'immunité après avoir contracté la maladie. Mm -hmm. Parce que tu sais évoluer et aussi avec la fabrication des anticorps qui pourront te permettre demain, bon, en contact avec cette maladie-là, l'organisme va être protégé. Mm -hmm. La deuxième chose, moi aujourd'hui, la seule piste qui peut mën qui permettre tey ñu leer nañu ne mënoon nañu virus bi na circuler mhm. mooy am le vaccin qui permet aujourd'hui de prévenir par rapport à la propagation de la maladie mhm. c'est-à-dire que leer nañu ne suñu population vaccinée lañ leen même bu doon di dox ils vont protégé. Mhm. donc ce sont deux facteurs qui sont fondamentaux. yoo xamante ni nii suñu ko réglé wut. Mhm. et je pense que c'est une inquiétude au niveau de l'OMS. Mhm. parce que tous les chercheurs tey loolu moom mooy la situation qui prévaut. donc il est important ñu insister si pour que mun a. alors donc euh, docteur Fallou est-ce que tey ci wàllu gestion stratégie il y a lieu d'améliorer wala il y lieu de changer la situation parce que xam nañu ni tey am na. ñaari weer est-ce que tey fi ñu jëm ba tey nii la ñuy continuer dee leen raxasu dee leen doxee nii dee leen doxee ne wala tey ci beneen anam la ñu war a taxaw. waaw comme euh, ni ko professeur Diouf léegi sa à dire le problème mooy xam nga sànq professeur Dieye wax na ko professeur Diouf dëggal ko dañu am benn virus boo xam ne virus bu bees la. Mhm. nga xam ne chaque jour mu wane lu bees. parce que bu bu muy doog a commencé dañu woon genre sot la ay dënn lay jàpp ñu doxal ba ci biir ñu xool ne euh, moom kat dëgg de c'est une maladie systémique. Mhm. bu jógee ci dënn bi aussi day yàq yeneen cër yëpp. ba pare boo xoolee tey premier euh, paradigme ñi amoon premier élément ñi pour diagnostiquer dañoo wax ne ko pour di métti booy def nii booy loolu passé nañ mm. te ba léegi gars yi mm. loolu war a jooyanti la. pour war na ne dëkkee nu nekk mm-hmm. mën naa dëkkee soj mën naa dëkkee biir buy daw mën naa dëkkee biir buy metti mm-hmm. parce que gis nañ ko fii même au Sénégal des cas yoo xam ne noonu lañ dikkee mm-hmm. mooy le cas du diabétique bu xam ne am na ko te amuloon il faut ñu changer stratégie bi parce que boo xoolee président dafa génn ne l'heure grave on est en guerre. oui wax ko mais guerre ñetti façon guerre moom. Mhm. mooy dafa la guerre asymétrique. Mhm. mooy la guerre défensive am mhm. nekk c'est-à-dire ñi ngeen virus bi. tey ñu def deux suba ñu def mais li gën wóor. bu ñu fi bëggee jëlee virus bi mooy li professeur Diouf wax léegi cest à il faut ñu def benn li ñuy wax tracking. il faut traquer le virus jusqu'à ses seul un dépistage ciblé et de masse moo ko mën a maye. Mhm. il faut ñu traquer virus bi. cest dire doo ñu def ak moom guérilla di laxante ak moom naan amuñu ay moyens amuñu ay moyens les moyens existent parce existe mhm. parce que loolu lu ko may ñu mun ko wax mooy un suñu jëlee tey les moyens la logistique am na fi. Mhm. tey am nañ au moins institut Pasteur mi ngi fii. IRSF mi ngi fi alhamdulilah bi ñu leen dugalee léegi ci lutte bi. IRD euh, IRD mi ngi fi. Mhm. ba pare am na beneen labo boo xam ne c'est un labo sénégalais. Mhm. boo xam ne mën naa ko tudd mooy Solab Sen. Mhm. ñoom disposé nañ pour mën a def test yi. te ñi ma tudd ñëpp ki ci gën a li nga mën def mooy 500. test donc mën nañ def tey un tracking de masse loolu foofu la war a toll. mooy sur troisième membre man bu doon dañu war a def dañu war a mën a passer fan la fa virus bi tëddee loolu tant amuñu ko amuñu cartographie boobu lutte bi day des mm-hmm. parce que mbetteel mën na ñëwaat mooy lu ñu dal le cas de Touba mm-hmm. yaakaar na jeex na fa mu dellu siwaat mm-hmm. parce que on n'avait pas une bonne cartographie de la chose génn na quatre quatorze jours la def peut être keneen importé ko waat na ko dugalaat ko fa mu commencé waat am euh, beneen inflation au niveau de ce truc là ñaareel bi mooy aussi il faut boo nekk stratégie c'est-à-dire def stratégie lutte di boddi compté mhm. boo ko defee du sotti pourtant ñoom ñu ngi naan lutte c'est une lutte multisectorielle est-ce que les acteurs ont été impliqués tous mais xam nga tey bu ñu nee multisectorielle la xam nga tey tout le du teew ñu nataal gis nañ profession yu bëri ñi nga ne du noonu mm. ils ont été très mal impliqués mm. loolu nag bu ñu ko bëggee def mooy il faut ñu yaatal yaatal bi mooy d'abord de la démocratisation de la chose mm-hmm. qui sont en périphérie ils n'ont aucune possibilité de faire de poser un diagnostic tey boo amee malade da naan malade bi yow demal nga woote hmm? te yow médecin bi waroon nañ la may astuce bu nga xam ne ni ngay gisee un diabétique suspecté ko bind bulletin d'analyse ne ah je voudrais que ñu defal ko glycémie agent HbA1c ñu test ko xool ba am na diabète mën hmm. nañ ko permettre aussi même les médecins qui en périphérie ñu mën ko def hmm. loolu dafay a mais dina jaar su docteur ñu xool ne kii ko bind docteur c'est organisé en quelque sorte organisé ko ah. mais ni ñu defar affaire bi ba léegi dafa am dafa am lu ñuy boddi compté hmm. dugg ci yombul hmm. xam nga tey boo reçu téléphone ak woote ne dama bëgg ñu def système des fois la plupart am naa si cas tey ji suba hmm. un jeune qui m'a appelé en me disant que j'ai les symptômes je ah, lu ma mun def wooteel mu woote nee na woote naa ñu ma en attente depuis boobu léegi jëluñu on va essayer de voir loolu mooy problème bi donc stratégie bi dafa laaj yoo xam ne dañ ko war a mhm. am na ci loo xam ne dañ koy saluer parce que le fait par exemple tey aujourd'hui ñu protéger les personnes les plus vulnérables mooy par exemple les vieilles personnes yi nga xam ne ñooy ñooy mag ñi nga xam ne ñoom lay gën a lor mhm. parce que boo xoolee feebar boobu ba léegi ñi mu loragul ñëpp 65 ans jëm kaw la mhm. moo tax euh, initiative bi président ji dafay tëj Euh, célérité bu yeex bi ñoom mooy vitesse su kii bi doxul bu baax. Mhm. parce que dina dal ay nit. mais ay comme on est population très jeune. Mhm. ñu bëri dañu am réaction bi ba du leen mën a tëral. donc loolu euh, euh, mhm. di yuuxu di wax. mais xamuñu ne tey résultats yi Sénégal am xëy mesure boobu jël de manière très précoce moo ñu si dimbali. tey bu ñu bàyyi Sénégal ñu ñëpp xam nañ ñu ñu mel. Sénégalais ku ku dégg ndigal boo leen bàyyi seen sago problème dina am. d' accord alors professeur Diouf maa ngi ñëw ci yow. parce que par rapport ak li Fallou di wax. Mm-hmm. mais professeur Dieye par rapport tey à une population jeune bi nga xamante ni dañ ko wax question d'immunologie bi parce que au début dañu ñëw ak ay idées reçues yu nga xamante ni ñu ko doon wax en Afrique. Mm-hmm. wax ni voilà gis nañu ni tey pourcentage immunité bi nga xamante ni am nañ ko. Mm-hmm. permettre na tey ñu am ay résistance anticorps yoo xamante ni feebar bi xëy na jot ñu. sax jafe-jafe la te ñenn ñi gëmuñu woon ba tey ni nit ku ñuul mën na ko jot yow mi nga xamante ni spécialiste nga par rapport à cela. waaw euh, ma rafetlu rek euh, question bi nga posé ak di <laughs> di sama it sama naataango yi ma parce que quand même débat bi c'est très intéressant vraiment euh, xam-xam bi gën ngi génn te ñu ngi vraiment waxtaan wax ak suñu suñu askan li xew ci affaire bi ci ci Covid 19 bi. Mmh. mais question bi nga wax bu am solo la parce que l'étude dafa bare njàngat bi dafa bare na. Mmh. dinaa ñëw ci question boobu précisément mais xam nga boo jàngee sax ñun population africaine. dafa ne une population jeune. boo ko comparé ak population wu Europe yi. te boo xoolee actuellement nii progression wu feebar bi gaawul comme ni mu gaawee ci ñoom. parce que dama lay dama lay wax rek benn benn benn firnde bu ndaw euh, gis nga dëkk yu bare euh, dañu ni boo amee cent cas rek na nga fagaru ñun bu ñu amee cent euh, avant ñu yegg cent cas. si ma naataango yi am ñu ci àdduna bi dañu naan woo naan ma moytu leen cent cas de bu ngeen ko amee. da ngeen dootu leen ko mën a benn côté. <laughs> boo xoolee par exemple dëkk tubaab yi euh, euh, euh, européens yi ñu jege ñu jege rek ñoom bu ñu amee bu ñu amee cent cas boo ci tegee maanaam téeméeri cas. Mhm. boo ci tegee ñaar fukki fan. ñoom nekk nañ ci ay dix mille cas. Mhm. Mhm. mais Sénégal ba mu amee cent cas xam nga kañ la woon. cent cinq cas ñu ngi ko am le vingt six mars. 2002 bi. est-ce que foofu tamit test est-ce que foofu tamit test yi soo xewu ci ndax ñoom. nombre bi ñu doon def ci lim bi ak ñun lim bi ñu doon def. mars ba léegi. Mhm. ñun ba ñu ba fa ñu ngi doog a yegg 1000 cas. Mhm. xam donc gaawaay boobu mu gaaw noonu ñun gaawu ko ñun dañu foogoon ne ni mbirum test yi la woon. Mhm. mais ban facteur moo koy expliquer léegi mais mais donc juste rek lecture boobu rek mooy am na am na quand même lu mu bon lu mu néew new new en Afrique progression bi ni mu demee nii bu doon sax ñun Sénégal rek la. Mhm. ñu mën a wax waaye mais Afrique yëpp la. mais est même virus. yëpp continent asiatique ak bi jógee foofu virus bi dana am gaa yu ndaw yu mu am. loolu mooy am na ay changement yu muy am yoo xamante ni waaye mel ni comme bu mhm. grippe. moom dafa changement dafa gaaw gaaw bi nga xamante ni ñëpp la jaaxal mais bii gaawaayam bi mooy ci wàllaate bi. waaye benn fànn boo xamante ni benn affaire boo xamante ni dafa leer ci bopp ñëpp mooy fi muy dugg di di di euh, di di la contaminé mm-hmm. ci ñun ñëpp amul nit ku weex amul nit ku ñuul amul nit ku jaune ñun ñëpp fa muy jaar fa mu jaar ci ñeneen ñi mm-hmm. foofu lay jaar ci ñun ñii kon nag contamination bi ni muy demee mm-hmm. noonu lay demee ci ñun tamit problème bi kañ moom mooy ni muy évoluer loolu mooy différence bi peut-être loolu mooy nag moo tax yow question bi nga am troisième chose bi ci mën a wax mooy loolu nga lu am solo la parce que quand ñun lan moo tax mu xaw yéex noonu mën na am ñu am une immunité préexistante déjà bu ndaw boo xamante ni wax ma bu rëy de mais loo xamante ni xëy na doomu jàngo yi ñu amoon avant wala vaccination ñu amoon avant xoolal tuberculose rek te aujourd'hui les gens parlent de tuberculose. ñi ngi bëgg dem di ñàkk ay nit naan xëy na mu am ay relation ay corrélation yooyu xam nga loolu yëpp ay dafa bari ay corrélation entre les maladies. Mm-hmm. loolu corrélation digg maanaam dañu am ay ay nuruwante. Hmm. te mën na am corrélation de protection boo xam ne lu mu tuuti tuuti tuuti mën a ànd mu diminuer noonu. mais léegi ba léegi boo seetloo population bi muy jàpp Sénégal ñi ci ay jeunes lañu parce que jeunes yi xëy na centre public ñoom dinañ mën ma wax ni peut-être jeunes ñooy gën a génn. Hmm. ñooy gën dem ci biti. mais benn mais ñaareel bi aussi jeunes yi suñu population dafa jeune. Hmm. léegi nag mais boo gënee jeune aussi ci nga gën a am capacité mën défendre sa bopp. nañu wax ne dëgg. pour nga mën défendre sa bopp yow sur le plan immunologique da ngay am moins de stress stress dafay wàññi ko da ngay mën di am nelaw yu doy mhm. ngay mën di nelaw di noppaliku mhm. da nga mën a am lekk bu bu équilibré xam nga da ngay jël jus de fruits bu normal mhm. da dafa am yu bare yoo xamante ni dafa war a ànd ak dallu boobu nga mën a am une bonne immunité mu mën a jàpp ci yow loolu moom loolu moom dafa leen ko fekk mais boo xoolee rek ni vraiment ñun nii am nañu daal yaakaar nañu suñu population ak yeneen population yi am na quand même une certaine différence hmm. lu mu néew néew néew néew ci progression bi ñu ngi koy gis ba léegi mais hmm. nag taxawul nag ñun tamit ñu tëdd nelaw ne kenn nelawul xelu kenn dalul boo gisee ba léegi ñi stratégie dem sawar naa trop di wax affaire stratégie hmm. boo gisee au début dañ doon commencé def tuuti test jékki-jékki léegi gis nga test yi yokku na capacité de test bi yokku na mais test du benn test rek na test de biologie moléculaire maanaam PCR. yow yaa ngi wax sànq naan da nga bëgg ñu am une cartographie de contamination Sénégal xam nga wax nga sànq kaw Touba bi dem am jékki-jékki mu ñëwaat encore. Mhm. xam nga déjà xëy na am na dootu contact yu fa nekkoon. yu am jàngoro bi te xamuñu ko. Mhm. mais xam nga loolu il faut ñu dem beneen niveau boo xamante ni. dañuy def ay test sérologique. mooy xool. c'est possible ñan sur le plan titrage anticorps. Mhm. ñan ñoo ko amoon. te xamuñu woon ni ñoom am nañ ko. te loolu am na ci dëkk bi. am na te donc moo tax ñoo xam ne am nañu corona ba mu wër. ba mu wër yaram te yëguñu ko demuñu hôpital demuñu fenn te. xamuñu ni ñoom am nañ te xamuñu ni ñoom amuñu ko. donc léegi rek vraiment pour pour wax loolu pour wax ni rek nii fi mu nekk nii évidemment suñu mbokk ah, naataango yi ah, nekk ci dëkku tubaab yi. Mm-hmm. jaaxle woon nañu trop ci ñun nii ba léegi ah. ñun mën leen jeexagul ba tey. Mm-hmm. mais ba léegi nag ñu ngi xeex ak moom ak di changer ay stratégie mais comme ni nga ko waxee mënoo dem ci coin bu ne nga samp fa benn bureau boo xamante ni ak benn euh, euh, benn laboratoire. unité mhm. pour teste mhm. lu tax mu xaw a jafe tuuti maa yi virus bi dafa gaaw a contaminé nit. Mhm. il faut nga am ay jumtuwaay yu doy pour mën def prélèvement yi. xam nga moo tax du prescription médical rek. prescription test rek demal defi test mi dama def test nangam déedéet bii même bu ñu la prescrire test foog nga def ko foo xamante ni. ñooñu dañu am seen jumtuwaay yu doy pour mën a bar alus alus parce que xool nga ni personnel de santé bi dans tout le pays du monde ñoom ñoo ëpp li ñu am contamination mm-hmm. donc yooyu yëpp dañ ko war a di saytu pour nag bañ a aar ba bañu aar bu ñoon aar nit ñi mais daal ci gàttal mm-hmm. boo xoolee daal di ñun suñu contamination bu nit ki bu contaminé mooy li nga wax sànq am na ku ñu contaminé woon ku ñëwaat bees mais dañ ko ay jàngat yu bare la mm-hmm. mais boo xoolee ci àdduna bi ñi ko amoon ñëwaat amaat encore virus bi seen yaram barewul lu mhm. néew la mhm. donc ça veut dire que certainement virus bi ku ko am ba pare am nañu njort ni xëy na nga am benn protection mhm. moo tax xam nga dafa am deux catégories boo ko amee di nga am ay anticorps yooyu développé mais da koy jàpp fu dëgër rey ko jàppale ko jàppale yaram bi sa yaram ba nga mën ko éliminer am anticorps boo xamante facilitant la maanaam da koy day jokkalante day mel ni lu ay traçabilité yu day def. Mm-hmm. mais donc loolu la mais dañu bu ñu xee xoolee ñi ëpp anticorps ñu neutralisé. Mm-hmm. moo ëpp gum ci ñi nga xamante ni am na ñu doomu jàngoro bi kon nag mm-hmm. ñu am yaakaar ni. ñi ko amoon am nañu yaakaar ni danañ mën am protection mais li gën a wóor. ci protection. daan ci ñoo xam naa mooy mbirum vaccin.

phase phase bu njëkk bi phase numéro deux phase trois ba numéro quatre te loolu dafa am nag benn diir bu muy jël lu mu néew néew néew néew néew dana def douze mois lu mu gaaw gaaw wala mu dem 18 mois loolu moo tax mu ni kon bala ñuy yegg ci foofu kon nag nañu jàpp ci li ñu alternative yi ñu am ak mooy chloroquine ak yeneen médicaments yi am ak ah. Ah, gars yi naan artémisinine ah artémisia ngi ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yëpp eh. loolu moo xam mais daañu wax encore ci vaccin yi pour la ni eh. mooy la seule solution ah. aujourd'hui boo xamante ni mën na am mu mën ñu ci aar. d'accord alors donc stratégie en stratégie. tey professeur Diouf est-ce que dañu war a dem ci confinement. voilà dama bëggoon balaa may wax ci confinement boobu. Euh, stratégie boobu justement. ma revenir un peu sur progression bi professeur Tandakha doon wax. Mhm. Euh, progression bi effectivement bu ñu ko xoolee comparé li am. en Occident ak li am Sénégal euh, dañuy gis carrément ne am na ngandiment bi différence bokkul. Mhm. mais aussi ay hypothèses lay yu ñuy émettre. Mhm. kese à l'état actuel. ay hypothèses la ñuy émettre mais man dama jàpp ne peut-être progression bi sax c'est moins c'est moins compliqué mm-hmm. mais li li gën a am solo mooy gravité feebar bi mm-hmm. maanaam euh, dégâts en rapport ak létalité bi mm-hmm. loolu xëy na bu ñu fa xalaatee ci la ñuy gën a mën a gis yoon wu ñuy mën a soulager ñun euh, pays africains yi lan nga ci gis voilà li ma ci gis lan la mooy ne euh, ñoom ils ont une population très vieille vieille vieillesse boobu day ànd ak yenn saa yi ay comorbidité mm-hmm. moo tax ku fa feebar ba ne cap dal rek nga dee immédiatement mm-hmm. ñun fii on a la chance d'avoir une population très jeune mm-hmm. population jeune boobu comme ni mu ko waxee léegi ñooñu ils ont suffisamment de moyens physiologiques pour faire face à n'importe quelle maladie bàyyi leen ñu génn baax na ah bàyyi leen ñu génn baax non bàyyi la ñu génn euh, ñan génn nit ñi génn dem taxawaalu. waaw les jeunes. <laughs> voilà loolu loolu loolu il faut que ñu def si aussi attention. Mm. Euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui Sénégal fi mu toll maîtriser gul maîtriser gul toutes les personnes yi nga xamante ni ñu ngi dund ak ay comorbidité mm-hmm. Mm-hmm. tey damay wax ne bu ñu bëggoon xayma ñi nga xam am nañ diabète wala ñi nga xam am nañ hypertension artérielle dañuy am ay problèmes. amaguñu ko ba léegi enquêtes yi ñu fi def certes am na enquête step. Mhm. boo xamante ni am na ay chiffres yu mu joxe mais ñun dañu jàpp ne en tout cas euh, euh, euh, la fa génn ci ay chiffres c' sous-estimé. c' est sous-estimé. c' est sous mhm. parce que ku mel ni man. acteur social la day génn di dem di def ay campagne foraine di dépister di faj di joxe garab mais damay rendre compte ne yenn saa boo defee benn kii boo xamante ni bo enfin on va dire euh, un petit échantillon de mille personnes yoo consulté mais chiffre ya fay am si diabète ak tension da lay da lay ëlëm da nga naan mais attends ñun bon fan lañ jëm loolu ku ko xam ak un peu de recul di nga xam ne aussi euh, laaj na prudence ci yenn façon stratégie yooyu nga wax comme nañ bàyyi gars yi ñu génn dem. wala euh, nañ bàyyi immunité collective bi. maintenant le <laughs> confinement ah euh, na dara quand même def na. def na ah, impact non honnêtement dama lay wax rek. couvre-feu bi. Mhm. man euh, actuellement awma tous les éléments d'appréciation. oui mais jàpp naa ne. Mhm. quand même war nañ mën a xoolaat mesure boobu. Mhm. buñ ko xoolaatee peut war a mën a lever la pied un peu. pour libérer un peu euh, l'économie mhm. permettre nit ñi ñu def yenn façon liggéey yi nga xamante ni pour survivre la parce que am na mhm. bu ko defee ñu imposer leen yenn mesures barrières yi nga xamante ni moom moo xew mhm. aujourd'hui c'est heureux de constater que masques yi nit ñaa ngi koy takk nu mu munti mu ngi leen di protéger d'une certaine manière wante nag nañ gën a góorgóorlu ci yeneen yi mhm. distanciation sociale nañ ko respecté wóoruma ba xam ne yooyu ñi ñaa ngi koy respecté ci biir oto yi transport en commun yi ci grande surface yi mhm. ci yenn milieu public yi mhm. wóoruma ba xam yooyu yëpp ñu ngi koy observé d'accord ko observé tout rek ma daaneel euh, buñ ko observé dinañu mën a dimbale ci lu bari beneen bi ma ci bëgg a teg euh, sëriñ Fall da ko wax gis nga démocratisation boobu noonu ah dafa bokk ci xeex bi bu amee pàcc boo xamante ni sooxe na fa foofu am na man je ne peux pas comprendre euh, tey jii structure yi wax yépp ne mën nañoo dépister mën nañoo def diagnostic wu feebar bi impliqué wu ñu ñëpp. Mhm. nañ leen recenser. ñu dem xool l'existant évaluer ko buñ ko mënee def ñu boole leen ci. Mhm. privé bi xaw ma ndax boole nañ ci ou pas mais am naa yaakaar ne boole wuñ leen ci xeex bi. mais buñ leen ci euh, buñ ah, ah, ah bon. kon tant mieux mais bon peut-être war nañ ko gën a mën yaatal. Mhm. bu may wax loolu c'est par rapport aux différentes collectivités. ah peut yoo xamante ni. Euh, ay cabinet privé ba fa nekk wala clinique et cetera ñu noonu tey jii am nañ parce que li mu wax léegi dafa am solo ah. man mi je suis très souvent confronté a ce genre de problème nit woo la ne la woy euh, bi man sama bopp sax jël na sama téléphone woo cellule d'alerte xaar ne dana dem pour jël malaat bi mu am tuuti retard quoi loolu noonu bu fekkente ne euh, def nañ de sorte que euh, dépistage kii boobu diagnostic yooyu noonu. Mhm. ñu organiser ko. Mhm. de sorte que kenn ku ci nekk ñu xam la fa nekk ak ña ko fay def. Mhm. dote leen en moyen. mais boobaa dana gën a a yombal xeex bi ci lu bari. waaw wala déet confinement ñu dem ci wala. non man. duma koy kuy confinement xam nga lu tax. dafa bëri ay dafa bëri ay euh, facteur d'accord yoo xamante ni euh, balaa ngay def lu nit confinement ah, da nga koy régler ba pare te loolu Sénégal pare <laughs> maa ngi xool enjeu bi mu gis nañu implication bi nga xamante ni ñu ngi koy soxla mm. je donne aussi une précision oui. plateau bi constitué nañ ko mm. mais invité nañu ministère de la santé et de l'action sociale mm. ñoom ñoo répondul te ñi ngi leen di waxaat encore une fois que ni li ñuy def c'est constructif ñi ñu war a jaar ak ñi ñu war a waxal waxal nañu ak ñoom ñi war a jot seeni message jot nañ seeni message pour ni leen ñëw leen ñu toog ñu waxtaane réew mi ci tolluwaay bi ñu nekk ndaxte fii ñu toll seetuñu ŋàññ amuñu problème personne ak kenn réewum Sénégal moom moo ñor nit ñi te moo ñu ñor liñ ci war a def te war ko waxtaane ki nga xamante ni lépp lu askan wi jàpp ni moom moo ko moom moomeel boobu ñu dénk la kooku la ñu sañ woo laaj ko ki toog këram duñ ko sañ woo duñ ko laaj ñii nag ñi ngi toog ngir kenn ku ci nekk bay sa waar ci li nga xamante ni moo di tolluwaayu réew mi. loolu tey moom moo indiwaat beneen laaj bu ñuy samp ma laaj ko docteur Niang président est-ce que tey implication bi nga xamante ni moo wat ci acteurs yi yëpp am na ci yaa ngi doon président interordre leeralal ñu foofu noonu par rapport ak seen implication sentir ngeen seen bopp bu baax par rapport ak li nga xamante ni mooy dox. waaw je voudrais que peut-être su may répondre ci loolu quand même euh, ñu bañ ko gisee ci dañuy dénoncer ou bien dañuy ñaxtu ou bien on intervient pour parfaire mm-hmm. j'ai l'habitude de dire qu'un système c'est un tout oui. ce n'est pas le propre d'une entité professionnelle médecin la pharmacien la dentiste même le brancardier ku ci nekk tu as une utilité un rôle assez important à jouer mm. aujourd'hui su fekkee damay wax ci cadre ordre. parce que les ordres en fait c'est l'autorité professionnelle. ça vraiment il faut que l'autorité politique mu comprendre en quoi consiste le rôle des ordres. ordre képp kuy professionnel ba ci professeur Tandakha professeur Massamba et tout ku ci nekk bala ngaa exercer c'est l'ordre qui te donne l'autorisation. l'exercice c'est une responsabilité professionnelle donc les ministères ont intérêt. di liggéey ak ordre yi parce que moo leen di permettre ñu am feedback par rapport à la conduite des professionnels. Mm-hmm. est-ce que en réalité ils sont en phase par rapport à la mission de santé publique. Mm-hmm. est-ce qu'en réalité respecté nañu li nga war a doxalee ainsi mm-hmm. pour un cas patent ben simple rek. aujourd'hui dans la démarche euh, la gestion du malade. mais ku ci nekk ci ñun ñëpp dañu wat dana jamais négliger le malade et sa dignité mm. humaine. donc même si lay corona ak lu munti nekk stratégie bu ñuy def dañu war a intégrer cet élément qui est assez important et le professeur l'a dit le stress aujourd'hui les populations sénégalaises dañ leen war a mën a intégrer ci benn tranquillité benn stabilité boo xamante ni même ku ci feebar sax je pense que dina mën a am capacité pour résister maintenant pour revenir aux ordres aujourd'hui moi personnellement je je préside au destiné d'une structure bu regrouper l'ordre des médecins des pharmaciens des dentistes était vétérinaire. Oui. Et pour vous dire que même, il y a un problème à un certain moment, tout à fait au début, que même des vétérinaires avaient des difficultés pour circuler. Mmh. Et qui intègre aujourd'hui la médecine vétérinaire Taille, ces gens-là qui sont en contact avec euh, nos animaux domestiques et autres. Mmh. Mais ça, c'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, Taille, nous devons apporter cette expertise pour nous permettre de mieux préserver aussi la santé humaine. du moment qu'on parle de One Health. dans le groupe maintenant. non je veux dire. donc l'implication jusqu'à quel niveau les gens duñu comprendre en fait mission yi. leneen li nga xamante ni nekk na ci aujourd'hui bu ma jëlee le secteur privé mais le secteur privé mais aujourd'hui il est exposé et laissé à lui-même et je pense que professeur je ne sais pas ban secteur privé ngay wax. Hmm. de la direction des laboratoires. du ministère de la santé. ok d'accord ils se sont organisés dès le début de la de la pandémie. man privé la euh, voilà pour mu woo ñëpp. voilà ñi nga xamante ni qui interviennent. Mm-hmm. dans le secteur du laboratoire du diagnostic. wala ñoom ñëpp en réunion pour que ñu ñu décliner un peu. Mm-hmm. tout ce qui dont enfin li ñu soxla yëpp. Mm-hmm. et puis daal di del lister maintenant mhm. laboratoire bu nekk lan nga am ci capacité mhm. ba xam yow mën nga def test PCR yi ba xam nga def lan fafaan nga mën a yem mhm. ok vraiment la, le listing a été fait <laughs> et là vraiment je parle devant la télévision et ils ne diront pas maintenant c'est vrai qu'il faut maintenant après cela <laughs> donc je pense que ça c'est important fondamental parce que plus ñu amplifier mais plus c'est bénéfique aujourd'hui par rapport au secteur privé je viens parce que les médecins me parlent les chirurgiens dentistes me parlent les pharmaciens me parlent aujourd'hui mais ce sont des structures qui sont fréquentées par des Sénégalais exactement aujourd'hui mën na nekk des des des des des moyens de détection yoo xamante ni nii tey dina échapper vraiment la structure en charge du Covid. et que le premier cas a été détecté par, le privé. et jusqu'à j'ai vu aussi d'autres cas yoo xamante ni c'est les flaires de pharmaciens parce que quand les gens Hier, j'ai envoyé pour un médicament. Mais le pharmacien a eu le réflexe de dire, mais loo koy doyee c'est important. parce que aujourd'hui am na sénégalais yoo xamante ni. Mm. comme il l'a dit porté nañ ko am nañ lu ñu sentir seen bopp ragal nañoo dem parce que y a une l'effet de stigmatisation. Mm-hmm. léegi ñu jéem ko gérer seen bopp et la c'est léegi le secteur privé moo ko mën a détecter. Mm-hmm. et de deux mais le secteur privé et exposé moi j'ai eu des présidents dor afrique qui sont contaminés. Mm-hmm. parce que jombul kenn. Mm-hmm. mais regardez aujourd'hui le flux de Sénégalais yuy dugg au niveau de ces structures là ñaata lañu bu ñu ko évaluer par jour évaluer ko le mois. Mmh. mais le risque il est là suñ ko négliger bàyyi les ne les structures sanitaires et autres mais maintenant cas bi naa des foofu. Mm-hmm. donc je pense que le ministère a tout intérêt. njabootam la. Mm. lépp mu jël ko. gérer ko de telle sorte que acteur bu ci nekk da sentir ne effectivement affaire bi nekk na. maintenant du point de vue de la dotation des EPI. Oui. aujourd'hui même su fekkee ne dañu nekk dans le secteur privé. mais c'est des Sénégalais qui sont investis d'une mission de santé publique. yoo xamante ne ils peuvent être exposés ba pare mën a feebar bi mën leen a dal. lan la seen structure di doon ëllëg. aujourd'hui quand un pharmacien est atteint que va devenir sa pharmacie. Mmh. mais tout ceci ce sont des questions yoo xamante ni dañ ko war a mën a teg donc je pense que euh, et cela est une recommandation de l'UEMOA aujourd'hui les ordres point de mire lañu parce que ki nga xamante ni nii moo lay jox autorisation nga liggéey mais kooku jaadu na chaque fois nga laaj ko na ko ni est-ce que ñi ma wax ñu dem liggéey est-ce que ñu ngi liggéey uh-huh. et donc de ce point de vue donc cohésion bi war a am entente bi war a am entre le ministère et les ordres. Mmh. Je trouve que ça mhm. dafa war a nekk quelque chose de très près. Et pour cause, pour mmh. illustrer cela, mmh. je pense qu'en France bi affaire bi commencé di jël yenn ampleur yi mais ce n'est pour rien que l'ordre a interpellé. waxuma la l'ordre est interpellé mhm. mais le ministre de la santé a fait son discours de sensibilisation au niveau du siège de l'ordre des pharmaciens. Mhm. Aujourd'hui, la distribution des masques c'est réservé à l'ex... Euh, en exclusivité aux pharmaciens. soo demee aux États-Unis c'est le cas soo demee au Canada et je pense que cela me permettra de rebondir sur les paradigmes. yoo xam ne dinañu a permettre le médecin jouer pleinement son rôle le pharmacien jouer pleinement son rôle le chirurgien dentiste la même chose le vétérinaire tout ça c'est au bénéfice de qui. du mais du peuple sénégalais. et je pense que ce Covid là il faut que ñu gën koo élargir et puis di lancer un appel à cet les gens, les membres de cette cellule d'alerte, vraiment aussi, je ne peux pas comprendre. mu ngi mel ne lakk gu am fen on appelle sapeur sapeur du ñëw mais lakk googu kañ lay fay non mais c'est vrai l'accessibilité est importante les numéros de communication numéro de communication su fekkee dafa am problème mais il faut que ñu trouver d'autres stratégies yu mën a permettre mmh. que les gens mën leen a joindre mmh. pour que au sommet des cas concrets et parfois ñu mën ko régler. d'accord je pense que ça euh, Moussa. alors quelque chose de fondamental. waaw ci euh, dama ko bëgg a appuyer ci li wax noonu. gis nga loolu noonu. Euh, solution bi pour man mooy démocratisation bi Fallou wax mhm. gis nga dañuy jàngale dañuy jàngale ci nouveau paradigme yi bon mhm. au nouveau ou ancien mhm. on va dire parce que ñun en santé bi dañuy jàngale nit ñi souvent ne leen booy def façon stratégie yu mel nii gis nga bi ci ëpp solo mooy boo xam da nga koy tabax à partir de la périphérie mu yéeg jëm ca kaw. Mhm. mooy li ñuy wax ah bottom up. Mhm. mais fii dañu am habitude di def top down. Mhm. jógee ci kaw rek. loolu la ñuy tasaare boo tasaaree nag du yegg fi mu war a yegg fépp moo tax bu waxee. loolu wax ne implication bi implication bi. xoolal dafa war a gën a yaatu. te au niveau de collectivités au niveau des communautés. fa lañ ko war a mën a gën a sentir. chirurgien dentiste bi ibbi cabinet ci biir euh, Fass Mbao par exemple. kooku noonu mais. il est encore plus exposé que le pharmacien parce que wax naa ko fi keroog day ñëw sëgg si gémmiñu nit ki euh, ba pare di faj mhm. mais kooku moindre geste rek mën nañ ko projeté affaire yëpp mu mu dem ak moom mais mbir mi xaar la tamit privé bi dañu war a xaar ñu impliqué leen wala ñoom it war nañu jàpp ni mbir mi non xam nga intérêt général la kenn ku nekk war na ci dugg affaire affaire état la boo jógee mhm. dugg ci lu ñu la yoon mën na dal sa kaw mhm. man jàpp naa ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ kii wax na ko nga wax ko keneen wax ko danaa ko baamtuwaat. kenn ku ci nekk am nga cet esprit de patriotisme. Mhm. li ñu fi indi loolu bokk na ci. bu ñu doon keneen dañuy toog. Mhm. am nañ leneen lu ñu def. Mhm. mais boo bàyyee sa yiite. weeru koor en plus ñëw toog di wax. ah surtout heure bi. jàpp naa ne parce que bëgg nga sa réew. gis nga lu mel noonu. ah tey jii boo fi waxee loo fi warta wax ñu ne la waroo ko a wax parce que kenn yabaloo la pour nga wax ko. mais dañuy def lii suñu devoir. li ñu war a wax toog xaar moo tax ba privé bi ne. il faut que davantage ñu impliquer leen ci xeex bi xeex bi xeexu sénégalais yëpp la. Mhm. boo mënee dem ne euh, dañu nekk en guerre situation bi métti na na ñëpp ñëw jàpp ci. Mhm. mais ci biir ñëpp ñëw jàpp yooyu am ñoo xamante ni dañuy tànn ñu ñuy seppi et mais day sooxe. Mhm. day sooxe bi gis nga bu ñu bëggee am doole lool pour faire face. il faut que. Euh, ñu xàccandoor di dóorandoor boobaa boobaa affaire yi dana leer alors docteur Samb est-ce que tey lii joxul la ni jafe-jafe am na wala quelque part a alors qu'on parle d'un même Sénégal d'un même système de santé d'une même institution ministère problème bi naka la waroon a doxee wala faay yi fan la nekk. non faay def naa li président Amadou wax def naa résumé na affaire bi parce que xam nga le problème mu aujourd'hui professeur Tanakh lu ma nga xam ne de l'association des cliniques privées du Sénégal. bi affaire bi commencé premier cas bi mu amee. le avril. Mhm. ñun ñoo njëkk jël sol suñu dal si ministre ne ko on est à votre disposition. dañ fa waxee dara nekku ci. parce que loolu ba léegi ñu ngi ko doon kaas ñu dellusiwaat na leen jox nañ leen dix cliniques privées yoo xam ne ça peut servir de lieu de confinement ou bien prise en charge de ces malades là nous nous sommes suñu alal lañ jël investir si xaalis bu bëri. Sénégal investir suñu d'abord te perdre un médecin un pharmacien un chirurgien dentiste c'est une catastrophe pour un pays Italie xam na si dara dañu mujj ay cubains ñoo ñëw di leen dimbali. Hmm. donc ñun lu ñuy def patriotisme ñun nag bu ñu tere di wax da nga am droit nag président dénoncer parce que Sénégal kenn moomu ko <laughs> être le premier des Sénégalais ne veut pas être le meilleur des Sénégalais. Ouais. le le meilleur des, le premier des Sénégalais peut faire am droit avertir attention te defe naa loolu ñu ngi ciy bàyyi xel boobu léegi. parce que nañ démarroon ak nañuy sax ba ñu fi toogee wax test IRSF yi dañ dugal IRSF. Mm-hmm. ba y' a une semaine y' a dix jours IRSF ne faisait pas partie les responsables ah, ah, il y a même pas dix jours faisait moins de cinquante tests tey ñu ci ay six cent et quelques parce que loolu dañu am ñu taxaw wax ne du yoon Sénégal ñun ñoo ko moom ay sénégalais nekk nañ fi mën nañ def test yi ko jox seen diagnostiquer un Covid c' est pas compliqué. pas compliqué. c' trop facile. donc tey impliquer même les infirmiers les sages-femmes d' parce que l'affaire lu muy mujj demee ay frustration lay mujj indi te baaxul. Mm-hmm. xam nga tey li ñëpp bokk na ci ñëpp yem. tey même le balayeur bi ne ci salle les filles de salle les garçons de salle gàcce ngaalama mais excuse-moi pour ne pas te couper mm-hmm. pourquoi c'est important aujourd'hui le cas de la France est illustrant si les tests là de dépistage du Covid mm-hmm. aujourd'hui tous les pharmaciens sont intégrés mais bien sûr mais ils mm-hmm. c'est parce que askan bi la aujourd'hui ñun dañu dañu waat ne pour être au service de notre santé publique de notre santé suñu wér-gu-yaramu askan et loolu importance bi mu am mooy ku ci nekk ci ñun agent assermenté nga am na loo xam ne ni sa xel xalaatul di ko def mhm. donc l'État ne peut pas avoir un potentiel aussi important très fort tu as des professionnels qui ne vous demandent rien duñ la laaj expertise duñ la laaj xaalis duñ la laaj dara mhm. ils sont là pour vous accompagner et vous donner en fait la bonne conduite mhm. mais utilisez ko d'accord voilà lu ma si doon terminer pour terminer professeur cest moo di ne ñun ñëpp Sénégal lañ am parce que li may wax gars yi rek Sénégal lañ far yu mel ni bu amee tey li professeur Diouf wax léegi suñu bàyyee suñu yite ñëw toog ça bëgg affaire yi baax parce que ñëpp kenn du ci mucc mhm. li may wax gars d' abord pour ñun la ak pour dañuy wax ne gars yi nekk ci seen seen comité de gestion la nañ xam ne mbir yi Sénégal yëpp dañ ci bokk tey abousi tamit li am solo mooy la véracité de message parce mhm. que gis nga lutte dëgg dafa am solo ci fekkee da nga crise dafa am te dañuy wax ne dëgg mooy li gën a njëkk tumuranke bu crise amee parce que bu ñu waxul nañu dëgg rek problème dafay am te fi ñu toll war nañu jooyanti te waxal nañu dëgg war nañu woon xaar sax ba nit ñi di yuuxu ñu dugal IRSF war ñu dugal IRD parce que loolu dafa am loolu lañ ci perte kenn xamu ko mhm. parce que dire que la célérité de la pandémie grawul au Sénégal c'est parce qu'on n'a pas testé les gens bu ñu testé nit ñi xam ne donc nañu jéem a force yi ñu am ñu boole ko parce que loolu mooy stratégie mhm. parce que stratégie bu amee boddkante rek nekkatul stratégie mhm. stratégie mooy da ngay tous les moyens mhm. en matière de santé publique parce que tey li professeur mooy la l' approche communautaire dafa am solo les décisions doivent partir de la base vers le sommet mooy tax nga am une cartographie très claire mais bu fekkee da am une stratégie boo xam ne ça le sommet pour mu dox pas pour ñun mu dox pour suñu réew. pour ñëpp mën si jëriñu. alors professeur Dieye. waaw waaw non lu ma ci bëgg yokk rek mooy mooy li nga wax dëgg la xam nga mbooloo mooy doole. Mm-hmm. xam nga ñëpp ku nekk lu mu bon bon bon am na ko wax sànq. ba ci brancardier bi dañ koy soxla. chauffeur bi ambulancier bi ñoom ñëpp ku nekk am na sa partition. Mm-hmm. xam nga loolu yëpp dafa am mais xam nga aussi feebar bi dafa nekk feebar ba xamante ni ñun aussi chance bi ñu ci am en Afrique en tout cas Sénégal. Mm-hmm. mooy dafa commencé fële bett mm-hmm. ñëpp nag. xam nga bett bett bett bettante ni mu ñu bettee. Mm-hmm. moo waral coow li bare. <laughs> parce que xam nga moo tax ku nekk ngi wax côté bu baax loolu mais boo gisee même France nga xam dëkk yi xam ñu mm-hmm. na ñu naan mais nu ñuy def jéem nañ fexe ba ci njekk ak caranga gars yi yëpp génn ci. mais je crois que li nga wax ni dëgg la mais privé yi dañu am seen cër. dañ leen war a cëral aussi. parce que quand Sénégal xam nañ ni. ñu bari ñu feebar ci privé la ñuy dem ñu faj leen am na sax ñuy am covid boo xamante ni ci privé la njëkk a yegsi parce que dañ naan non non non man privé laa daan dem man sama sama ak am naa moyen pour dem nangam xam nga yooyu yëpp am na ci mais donc yëpp dañ ko war a sóoraale au départ pour mën ko prévoir au moins mu am des cliniques privées ou bien en tout cas des institutions yoo xamante ni dañu ci boole même en France ça ça ça a y a eu beaucoup yoo xamante ni qui sont passés dans l'hôpital mm-hmm. l'État moom c'est l'hôpital qu'il gère au départ les hôpitaux euh, publics mhm. mm-hmm. qu'il gère d'abord donc quand en cas de crise évidemment foofu la njëkk a dem mm-hmm. c'est logique mais comme ñu wax nii c'est dynamique. c'est dynamique ça doit être dynamique. Mm -hmm. les mm-hmm. stratégies doivent être dynamiques. Mm -hmm. c'est-à-dire que on les change. Absolument. en fonction des de l'évolution on les modifie sax donc c'est pour vraiment dire encore une fois que je pense que le ministère ñoom ils sont dans cette dynamique là je le je le pense hein. Ah, donc on espère vivement que. évidemment que ñoom euh, ils vont intégrer peut-être yéen ñi nga wax nii mhm. s'ils l'ont pas déjà fait en tout cas c'est en bonne voie mhm. mais aussi se revenir encore sur les tests mhm. xam nga pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays de ce monde parce que les gens ont pensé que c'était très simple il y a eu beaucoup de contamination il y a beaucoup de faux tests il y de tests yu gars yi dugal ci marché que l'État du Sénégal à un moment donné également mais ne dëgg gars yi defar tests yi mais ñoom ñu ñu jox ko seen ay naataango seen ay doom seen ay nit foofu ba pare moo gën ñu jox en Afrique. du dëgg mm. daa tous les pays africains fii ñoom ñëpp am problème test amul pays boo xamante ni amuloo mën nga defal commande nga xool léegi yow mën naa la en français mën naa la xam nga dama salabat nga def nga pour test nga xool est-ce que les gens vont te vont te l'envoyer tout suite non mm. il faut du temps dañaa noonoo xaaral parce que am na beneen commande bu jóge fa il y a il y a des institutions qui ont commencé le faire à Thiès c'était l'Institut a également IDSF aussi qui ont qui font mais qui certains même à, ce niveau-là souvent les gens ont déjà préfinancé presque mhm. am na yoo test yi déjà ils l'ont mis déjà en place avant que xam sur le plan international mhm. et ça vraiment ils ont quand même un euh, ni ma ko mën a euh, mérite aussi. quand même d'être là pour jàppale gars mhm. mais aujourd'hui comme tu dis. dafa am beneen niveau. bu mu yegg xam nga léegi yaa ngi naan léegi foog faut ñu am un peu plus au niveau communautaire. Oui. et même so loolu sax donc il faut quand même ñu jéem a dem à notre palier. boo xamante ni daañu inclure encore d' autres. Mm-hmm. non seulement inclure d' autres mais le nombre de tests qu'on fait par exemple. je crois qu'aujourd'hui on a on, on a fait combien de tests. 1024 tests 1024 mhm. tests. non 900. mais donc aller jusqu'à 2000 ou 3000 mhm. ou un peu plus. Mhm. serait une bonne chose. et que c'est possible. non non c'est possible. cest tout dépend de la stratégie. que le ministère a mis en place. cest à tu l'as dit tout à l'heure. il faut que les gens s'asseyent. pour dire, ce qu'ils sont en train de faire certainement, oui. pour dire que nous, les cas contacts sont là, on va prendre peut plus de, euh, voilà, des, des hotspots ou bien des zones très mm. sensibles, on va faire un échantillonnage au, aléatoire. Aléatoire, au Par hasard. c'est des stratégies. Mais comme je dis encore une fois, c'est dynamique. comme ni nga wax nii je crois euh, discussion am na am na solo. beaucoup de gens vont l'écouter <laughs> et vont peut intégrer pas mal de choses ah. autour. d'accord pour mën a mais vraiment pour gàttal. Mm-hmm. terminer rek. vraiment test yi. Mm-hmm. am na solo. Mm-hmm. parce que moo tax ñu gën a xam. le nombre mais boo xoolee ba léegi. Mm. chaque fois que boo defee même tests nga def mille tests on sait bien que le taux de positivité reste le même. li ma la wax ne du dañ. c'est-à-dire que même xam mën nañ def un échantillonnage c'est vrai ah. Euh, relatif. relatif voilà, toujours voilà, relatif, relatif, relatif voilà, relatif et je, je vais y revenir. voilà voilà moom moom moom spécial mais mais jeex na sax. mais mais jiw taal jeex na non taal warul jeex non mais deux heures de temps. mais vraiment mais vraiment. mais di rafetlu waaw. kon ñu conclu rek. mais mais pour terminer rek un un mot rek. pour wan pour la stratégie elle est dynamique. même au niveau des centres yi yi ñuy centre de traitement yi. Mhm. gis nga chaque fois bu ma bu ma xawee ndar. Mhm. ndar am na Louga am fa ay cas finalement dañu déplacé ñëw Louga. léegi am na bu ñu ibi gërëw Mhm. même Thiès am am na xam nga fu nekk ñu commencé naa mais en même temps également laboratoire yi également dañoo dem dans ce voilà c'est ça donc euh, euh, professeur euh, Tandakha Dièye ñu sant ko gërëm ko par rapport ak pertinence bi ak li nga xamante ni moom la wax mm. donc loolu moom mooy kaddu yu mujj nga xam ne jagleel nañ ñu ko <laughs> en attendant ma jox professeur Diouf jox docteur jox la ah, bu ko defee ñu merci en une minute <laughs> une ah, minute voilà li ma bëggoon wax rek mooy li professeur wax dafa am solo mhm. ah est-ce que fi mu nekk nii euh, maanaam li ñuy bañ a wax dafa mel ni yegg nañ ci pic bi parce que affaire yi gis nañ ne da doon wàññeeku 10 pour cent la woon muy wàññeeku di wàññeeku tey am nañ 4 virgule nangam pour cent ma ne leen prudence mhm. encore une fois mhm. bàyyi leen aller trop vite en besogne mhm. gis nga affaire bi ñun lu ñu jàngal euh, boo ñëwee par exemple nga def échantillonnage raisonné li ñuy def nii c'est raisonné on prend cas contact on cas on prend les cas communautaires. Hmm. on prend je sais pas encore beneen bi nu mu euh, euh, euh, type de cas bi. Hmm. cas suspect yi jël leen bref tester leen. loolu c'est raisonné. Hmm. bu bëggee am sax une petite précision. je dis bien. de la situation à l'échelle nationale ou locale. on peut faire un échantillonnage aléatoire. gis nga aléatoire boobu noonu. moom mooy tu donnes la chance à tout le monde. de faire partie. à l'échantillon. Mhm. d'accord ou bien tout le monde a la même probabilité. Mhm. de faire partie de l'échantillon. am na solo donc loolu c'est important. Mhm. Euh, euh, dañ fay invité ministère bu baax a baax. il faut ñu wàcc benn aspect bi ma bëgg a terminer. waaw c'est la communication pour ne pas dire sensibilisation. xam nga fii on avait dit il faut que ñu reconvertir les les de la maladie. mooy ñi nga xam ne ils ont eu la maladie ils l'ont vaincu. ñu dugg ci biir xeex bi bokk ci. mais ça fait plus de quinze jours ñu ngi koy xawma bientôt un mois. mais amul évolution. Mhm. gis nga affaire bii tey. boo demoon si socio-anthropologue yi danañ la expliquer parce que moi je travaille avec des socio-anthropologues. Mhm. hein j'ai eu à faire beaucoup de travaux là-dessus. et d'ailleurs réseau bi ñu bokk réseau réseau CAP. Mhm. am na ay socio-anthropologues yu koy wax communication nañ leen ci boole. gis nga boo gisee moo am ay résistance au niveau communautaire mhm. ñoo xamante ni ba léegi ils rechignent à appliquer certaines règles certaines mesures mhm. c'est parce que communication moo baaxul on ne le dira jamais assez d'accord il faut ñu def ay efforts sur ce plan yooyu yëpp changement yi la bokk ci stratégie paradigme yu bees yi en une minute président man ci paradigme yi moom il faut ma wax ci mhm. eh, bi ci jiitu mooy mu jox mi ma remercier de après <laughs> waaw eh, bi ci jiitu très vite waaw ñu ngi may def temps restaurer dama euh, la dignité des professionnels nañu restaurer la dignité des professionnels mm-hmm. tey ku ne xam ne lan mooy solo Sénégal gépp tere nañ leen ñu dox mm-hmm. ba ñeen lañ may ñu dox mm-hmm. donc li leen may gëdd boobu mooy ñu restaurer la personnalité des professionnels de santé leen leen jox gëdd ça c'est un ñu réhabiliter également seeni monopole le monopole du pharmacien on ne peut pas comprendre dans un pays des gens se lèvent pour se faire passer des médecins des gens se lèvent pour se faire passer des

la souveraineté pharmaceutique était fondamentale. Mhm. Sénégal mënul am. sanitaire même sanitaire mhm. Sénégal mënul am. un potentiel de professionnel. Mhm. boo demee le Maghreb ñoom ñëpp pharmacien médecin fii lañ leen. pour daaneel foofu waaw pour daaneel. pourquoi donc nous avons les ressources humaines. li gën a jafe ce sont les ressources humaines. am nañ ko nañ ko exploiter pour que Sénégal mën a nekk. topp yoon Moussa may ma benn seconde ma wax lii may ma <laughs> benn seconde non dama bëgg rek benn seconde pour dire que il faut ñu def une analyse de la situation mhm. pour mën a évaluer liñ fi jot a teg comme mesure li mhm. ci baax mhm. ñu renforcer ko li ci bon ñu dindi ko. non ñoom dinañ jël noonu. loolu c'est important loolu rek laa ci bëggoon dinañu améliorer waat. docteur très vite <laughs> ba li am solo rek def naa gars yi gars yi ko fii mooy c'est-à-dire que tey aujourd'hui li ñu soxla mooy tey benn dynamique d'ensemble le Sénégal soxla pour pouvoir vaincre dynamique d'ensemble bu dafa am solo cest à il faut nit ñi aussi tamit di réfléchir ci dynamique boobu ñu jéem a joyanti parce que toujours booy lutte ak euh, booy xeex ak lu nga xam ne moom day soppeeku saa su ne da ngay soppeeku topp ko mais doo taxaw di ko xaar stratégie ñam c'est des stratégies Alors on a besoin de stratégies qui sont dynamiques. Mm -hmm. qui collent à, à, à, cette maladie et à ce virus-là. d'accord je vous remercie. merci kon professeur. waaw waaw man nag euh, mhm. euh, invité nii euh, sama naataango yi mes plus jeunes frères. ma kontaan lool nag bëgg lool ci seen pertinence su propos. Mhm. xam xam ne rek day jëriñ askan bi. Mhm. Ah, docteur Diouf professeur Diouf sax laay wax sax ah, <laughs> ah. docteur Samb Fallou ak docteur Niang. vraiment may rafetlu nag seen seen waxtaan. ndax xam naa ni nag wax wax dëgg yàlla ñu ñoo leen mag hmm. mais li ngeen wax nii lu hmm. takku la hmm. te da ngeen engagé wu te xam nga engagé rek moo ci am solo covid 19 moom engagement la laaj ba ci ki gën a tuuti laa la wax fan yi démb rek maa ngi def ab benn communication boo xamante ni ci benn réseau benn euh, réseau bu mag boo xamante bu ñu naan décidé naa benn benn tuuti boo xamante ni dëkk yëpp Kolda dëkk yëpp Sédhiou foo dem rek mais xam nga lan moom ci gën a frappé euh, dañu wone masque xale bu sol masque xam nga xale du mu def sole masque. dafa jël masque en papier. Mm. en carton. Mm-hmm. la defar fii def fii. génn de génn dem di dem yoonam. Mm-hmm. non loolu. Mm-hmm. dafa daw sama yaram. parce que dama xam ni ba ci xale boobu ndaw boobu. xam na ni buy génn. day sol masque te amul masque comme suñu bos yi. dafa wut masque en carton defal boppam kon nga war a xamante ni. ñëpp ci war a dóorandoo xàccandoo dóorandoo. ñu génn fii ci coronavirus. vraiment jërëjëf j'espère que. <laughs> non une motion. <laughs> Eh, professeur foofu nga duggee. laay bëgg a ne ne fait solution. yàlla moo ko may nit. Mm-hmm. c'est naturel. gis nga Adam yonent yàlla Adama ak Hawa. Mm-hmm. bi leen yàlla dégradé ba seeni arwa seeni arwa génn. Mm-hmm. aussitôt garab gi nga leen doon aaya ñu lekk ko ci lañ am réflexe. fab pour nëbb seeni awra. am na solo ça veut dire que la solution elle est là. elle est là. d'accord donc. spontané. Mhm. il faut que ñu Sénégalais yi il a l'imagination il est intelligent. Mhm. je pense que bu ñu développé benn stratégie rek. Mhm. ñëpp dinañu. dimbale ñu jóg ci te am na aussi seen réaction def nañ ko ci masque yi artisanat yi jóg kenn ku nekk jóg dugal ci loxoom kon nañu jàpp ni ñu nit ci dynamique boobu la ñu nekk ah dynamique d'ensemble fexe ba Sénégal jóg jëm ca kanam Covid bi ëllëg euh, ñu mën ko fàtte loolu mbokk yi moo waraloon tey ñu sant gërëm suñu ñi nga xamante ni ñoo di experts yi ñu àndaloon ci urgence grand format bi ñu teg kon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen xam naa nag dinañ dégg seen euh, seen seen seen seen jàmbat ah nañu wax ci temps bi nañ ko gën a loolu <laughs> ngeen jëf.